am boo xam ne bii euh, benn kuréel bu bokk fii ci ñun moo ko initié mu di lex euh, tàmbali nañ ko ay fan ci ginnaaw tey jii ñuy wax pétition bi am na juróomi junni euh, juróomi jun ñaar fukki junni ak juróom yu sénégalais ñoo ko ñoo ko signé ñaar fukki junni sénégalais ak juróom ci ñetti fan rek wala ñeent signé nañu pétition bi wane ni lii am naqadi na leen te ñu ngi jox xar bi baaraam ni président na leer ñaar fukki junni ak juróom ci ñetti fan. dinañu ko continuer nag ñi nga xam ne signé guñ ko woon ñu ngi leen di ñaan ñu dem ci réseaux sociaux yi ak Facebook signé ko. bu ñu demee ci rassemblement bi incha allah vendredi danañ ko fa indiwaat ku fa ñëw yaag sa njaboot ak mag ñeeg maam booy bu leen bàyyi kenn ne ku ne ñëw ak sa drapeau ñu signé waat ko pour woon addina bi yëpp ni leen du ñu réew mu yàccaaral ba ñu ñu defee lu ñu metti def ñu loo xam ne lii baaxul. askanu Sénégal jóg na xeex ko communauté internationale dinañ ñu jàppale africains yi dinañ ñu jàppale sénégalais yeneen yëpp dinañ ci jàpp voilà. Est-ce